woon tey jii ci samedi bi pour procéder ci clôture deuxième phase u société coopérative bu Touba Mboul dafa naa yendu nañ fi ak jàmm jot nañ dem ci tool yi def visite yi biñ fi jógee itam ñëw nañ ci cérémonie bi pour remettre GIE yi ñu remettre leen seen papier yi nga xam ni moom lañ doon xaar koy rafetlu bu baax a baax a baax Euh, weddi defe naa gis bokk ci yamuñ ci ay wax rek biñ ñëwee ànd na nag ñun ba ci tool yi gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam ni moom la fa nit ñi di def et que réalité la développement local ñëpp xam nañ ne réalité la suñu gisee initiative yi mel nii ay ndaw porte ko du ñu def lu dul di leen ci gërëm di leen ñaax ñu yokk ko loolu daal moom mooy li nga xam ni mën nañ ko jàpp ci bés bi te di ñaan yàlla mu gën fee yaatu comme ni ñu ko waxee woon ba yeneen gox-goxaat yi itam mën cee jot. Euh, tey jii tey du ma départ ci bitim réew mi damay départ ci biir réew même fii ci biir réew mi il faut nécessairement que nit ñi jege euh, jege banques yi ak mutuelles yi nga xam ni euh, c'est des mutuelles de développement du ma tudd ay tur parce que damay bañ publicité mais képp ki nga xam ni yore nga GIE en bonne et due forme yore projet boo xam ni. projet bu normal la defe naa doo am benn problème pour ñu financé la nga liggéey dellu waaw loolu daal loolu laa amoon li may wax ci ci euh, Talibou Yokone adjoint au sous-préfet de Kayel. ñu ñëwoon tey ci commune bi pour def suñ clôture deuxième phase su projet nga xam ne société coopérative Touba moom moo ko doon mëne di ay tool yoo xam ne defar nañ ko ci ay dëkk ak euh, ay sàmmukaay. tey ñëw nañ dem visiter toolu Ndoka Ndoka 1. def nañ ko seew Ndoka 2 def nañ ko seew Touré def nañ benn ferme Ndoyeen def nañ benn ferme fii Touba Mboul nga xam ne ñoom ay jur lañ leen jëndal juru gàtt yi muy ay bëy ñu war koo joxe tey jii sax incha allah. fi mu ne nii ci wàllu projet yi def nañ ay tool yoo xam ne nii lépp luy légume rek boo xam ne nii mi ngi ñor ci senegal ñu ngi koy am fi ci Touba ñu ngi koy mën a am ci tool yi euh, débutant la nag commencé nañ ci basante bi patas bi. gombo ak kaani salaat tamaate yooyu yëpp presque ñu ngi koy def fii ci tool yi ak euh, coopération Activa te appel ci état du Sénégal surtout ministre de l' agriculture pour mu gën ñu jàppale ci suñu activité yi ñuy def muy ci wàllu mbay mi gën a yokk tool yi ndax dañoo commencé ci tool yi ndaw ñu gën ko yokk ak ndox mi tamit ñu am ay mini forage yoo xam ne danañ ci mën a bay liñ bëgg a bay yëpp ndax ndox mi day manqué ay panneaux solaires yoo xam ne nii ñoom ci teen bi lay jëlee ndox mi yóbbu ko ci tool yi directement mais bëggoon nañ mu gën a yaatu ba nga xam ne danañ am forage boo xam ne nii dana mën a tool dana gëna a mën a yaatu ndax bu dee panneau solaire yi kese du sori tool bi soriwut ak teen bi bëgg nañ mu gën a yaatu daal ba nga xam ne forage lay doon wala ay mini forage ngi lancé appel ci ministre de l' agriculture mu ñëw ci société coopérative bu Touba Mboul xool ay activité yi nga xam ne moo ngi koy def di ko mëne depuis 2019 ba léegi euh, ñi ngi koy lancé appel pour mu ñëw xool ko xool nu nan la ñu ci jàppalee ba nga xam ne eh, dana gën a avancé daal ci par rapport ak niñ toll nii ndax suñ doolee ci panneau solaire yi lañ toll mais bëgg nañ mu gën a yaatu daal ba nga xam ne ñëpp danañ ci jot seen wàll surtout ci yeneen villages yi nga xam ne ñoo ñoo gën a jege. def remise des diplômes maanaam ay GIE yoo xam ne defaroon nañ ko GIE yi avantage bi ñu ci jublu woon mooy pour yow nga mën a defal demal sa bopp suñ la defaree les au moins da am accès ci banque bi da nga mën a organiser wu pour mën a defar sa bopp loo xam ne euh, sans projet wala sans keneen danga mën a demal sa bopp léegi ñi ngi ñaax ñi nga xam ne ñoom lañ ko jox ñu gën a góorgóorlu xam ne du këyit boo xam ne da nga koy denc ci tiroir rek mais dañ ciy liggéey jéem a def ay activité jéem a def euh, comme li ñuy def ci wàllu mbay mi agriculture ba ci commerce yëpp daal mën nañ ci gën a góorlu ba nga xam ne développement dana fi am ba jeunesse bi nga xam ne ñoo doon génn di dem di tukki di wuti lu ñu am mën nañoo des fii nga xam ne mooy commune de Touba wala district de Kayel di fi am seen li nga xam ne moom la ñuy ci àll ba ñu ngi lancé appel daal jeunes yi nga xam ne ñoo dëkkee ci gox bi ñu xam ne fii liggéeyukaay am na fi defar nañ fi ay tool sàmmukaay am na am nañ possibilité man fi liggéey nañ jéem a def le tout pour gën ko développé li mu GIE yooyu mi ngi toll ci 18 GIE 10 GIE 18 yi ñoo jiitu woon ren lañ defaat 10. muy 18 G yoo xam ne ñoom ñoo composé société coopérative bi ñi ngi ñaax ñëpp rek ñu gën a góorlu ci société coopérative bi nga xam ne Touba Mboul la ba gën a mën a acti euh, activités yi gën a développé ci ci commune Touba ak district Kayel